jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalataleen ak jàmm ba tey rek ñeel li nga xamante ne si ne moo di rek kooke di Demba Guissé mel na nekk daati nay génn po clip doon nañ ko sax gis rek ginnaaw gaañu ko kooke di Aziz Dabala daati bokkoon rek si boobule clip moo xam ne doon na ko doon def mu doon Aziz Dabala ak Wally mel na ko nag daat nañ leen sa gis ki nga xam ne moo di kooke di Aziz Dabala ki nga xam ne moo di Wally te rek fan yi ñu génn rek ñu daal leen ni rey rey gu ñaaw ñu daal di génn àdduna mel na nag boobale clip ña nga leen see gis eh, clip boobee xam ne kooku di artist bu mag a mag nekk Demba gisee mu waay ko rek si alpulaar ñu daal leen see gis moo ki nga xam ne moo di Wally ak ki nga xamante ne si rek moo di Aziz Dabala mu doon mbir mu doy waar nga xamante ne si rek ku leen waxoon na rek boobale clip buy génn ah, duñ ko fekke yaakaar naa kon duñ sa nekk rek di sa joué moom kooku di Aziz Dabala ak ki nga xamante ne si ne moom moo di Wally kon nag mu doon mbir mu doon si ne rek yàlla nag moom rek ak fu ko soobee rek noonu la koy daal di doxalee kon nag ñoo ko gis noonu moo doon clip bi nga xam ne euh, kookee di démb gisee di artiste daal na koy génnee ñu ñemme ko soog Aziz Dabala xamante ne si ne moo di Wally moom kookee di euh, démb gisee nam ko waxee na rek ñoom ñaar ñooñee bokk nañ sa boobi la clip bi nga xamante ne si ne daanaka rek moom la ñu mujj a juyal moom ki nga xam ne moo di démb gisee di ko rek feccal li nga xamante ne si na moo di ab kilibam ñu gis na ki nga xam ne moo di Aziz Dabala ki nga xamante ne si na moo di Wally te nu génn rek àdduna yàggul dara mu doon uh, mbir mu xamante ne seen rek constat uh, ah, bu leen neexee rek yàlla uh, boobu rek la koy daal di def kon nag ñooñee képp ku leen waxoon rek bi la clip buy génn du leen ko fekkee kon nag ñu daat koy weddi ndaxte nag amoon nañ yéene gisaat li nga xamante ne si na moo di boobee la clip ñu xamante ne si na moom lañ doon feccal ki nga xam ne moom moo di démb gisee mu deen clip bu am solo lool kookee di démb gisee di ko waaye nag si al pulaar kon nag ku ko seetaanagul rek demal daal di seetaan uh, boobale clip ñuy ñaanal ñi nga xamante ne si ne ñoo si génn àdduna yàlla na yàlla yërëm te xaare leen rek àjjanay uh, firdaw si mu doon kookee di Aziz Dabala ak Wally